maa soxla woon jàkkaarloo ak yéen euh, waxtaan pour ngeen tasaare ay xabaar par rapport ak attaque yoo xam ne nekkuma woon Sénégal euh, jóge na ci Farba Ngom parce que am na ci lu ma waxtaan naa ci ak moom euh, bala ma jàll aussi ma masawu Sénégalais yëpp ci yaakaar ju mag ji nga xam ne amoon nañ ko ci coupe du monde te yàlla bu xasee ba dogalam ci am daf koy nangu def nañu li ñu man ak li ñu xalaat ne baax na joueurs yi góorgóorlu nañu mais yàlla def na ñuy ñàkk euh, nañ leen encouragé pousser leen parce que yeneen i étape mi ngi ñëw moo gën a déstabiliser euh, équipe bi kon loolu maa ngi koy sàkku ci yéen ndax lii am am na ba pare fi ñu toll ñuy wax yéen Espagne toog na euh, Argentine toog na nous mel ne euh, Allemagne toog ak yeneen ñuy toog suba ak ginnaaw football la chance moo ci am euh, bu kon euh, tax ma woole ndax loolu dama ko leeral rek précision de taille bi mooy wax ak kan un militant de paix de première heure boo xam bi kenn yaakaarul ne Macky Sall

man Moustapha mi doon te nekkoon député nekkoon député CDAO président chambre de commerce jege woon Ablaye Wade lankoon mel na mi la dara changé wu fi xeex pouvoir position boobu ci laa le lépp luy Sénégal le luy yàq parti bi bokk muy APR xam dama milité dinaa ci yëkkati pourquoi ma koy dafa jóge ci lu ma wax dem naa benn meeting dégg fa wax yoo xam ne warul woon a jib par rapport li ma représenté ci parti ak li ma ci def ci alal ma wax gone yooyu nga xam ne sama suuf maa leen yar wax dañ doon wax te dañ leen a jënd ci ay alal ñuy wax du wax bu amal njariñ parti ndax ñi leen jënd ay dealer la ñu xaalis moo leen soxal man

APR bi ma bokk mu dem benn jamono boo xam ni waxuma général mais fi ma dëkk xam ne fa laa ëpp militant muy département Mbacké ay nit ñëw di ko yàqte di ko caxat-caxatee di def ay diin di rey ña jëkkoon di dekkal ñoo xam ne dañ ñu doon xeex te dees nañ jógee wala leneen ma ne loolu jaaduwul jaaduwul jëkkul waree su ko def ma ne ànduma ci

waaw léegi génn naa ci loolu mais militant la bu APR du ma génn APR wax naa ko suma doom dama cee son tey poste yi ñuy wax ñenn ñi di ko tudd mooy président de la république assemblée nationale yeneen ak yeneen ay dividende la ay gain la yoo xam ne dafa jóge ci ab combat dividende bi ma ci am nag man sama sama part ci dividende bi mooy premier vice président de l' assemblée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 du ma ko défendre loi bi gëna a controversé muy parrainage Té Farba Ngom mi wax ak yeen ci bureau euh, Amadou Ba la veille du parrainage may dem Bamako cour de justice de la CEDEAO invité ma moo ni ma avion lañu la war a luyee laaj ne ko lu tax mu koy wax nga ñëw fekk man man bindoon naa ba def ab demande d'autorisation d'absence d' joxe procuration mu ni ma sa présence ci salle bi

ku ma séqal li may séq ak suma baay bi muy dund moom la Farba laa wax géwël la waru garam du fekk am mbir mu yàqu mu koy gën a yàq daa war a dox tànk yoo xam ni yi moom laa gis président bi suuru dox ko gisee nanu ndax démb laa ko waroon def jox ko waxtaan nanu xamal naa ko ni ko may naa ko lu bëri ci fi ma bëggoon a àgg du ma fa àgg ci wax waaye mënuma bañ a dajeeg Sénégal yi ndax sama honneur moom la ñu attaqué sama bàyyi nee na bu nit toogee ci penc mi torox la na nga ko tontu ci penc mi bul wax ci sama morom la wala du sama morom dafa am lu mu teg sama xaw loo xam ne amul ma war a taxaw ak Sénégalais yi ni leen moom moomu kër jàpp ne milliardaire la te ma waxoon ni 2009 muy Farba Ngom bi dem élection locale waxoon na ne amul lu mu campagne benn Mercedes am lay jaay campagne tabax na kër goo xam ne estimé un milliard mi ngi yor ay centaines de millions di ko traversé frontières yi milliers milliards yu muy joxe fu mu juróom c'est une question importante bu dee moom daf may jox ci milliards yooyu man na ci tontu kañ la ma ci doon jox kuy témoin ak lu tax mu ma koy jox je man ci marché marché marché directeur pression awuma directeur boo ngi dem ci yow di direction laa am xam ci Sénégal bu port en tant que président chambre de commerce ñoom lien de travail port quatre ans yi Ablaye Diop fa ba parce que dañu am rapport en tant que union des chambres de commerce à Le ministère yi nekk Sénégal ministère des finances la fi bu mooy intérieur dans fa dugg mais à bi ba mu fa ñëwee léegi sama tànk jaaru fa maa ngi fa mujj ci Ablaye Daouda ministère de l'Agriculture dans dama leen di lebal jiw comme tous les opérateurs semenciers quand dans fa dem mais amul beneen ministère comme ban ban santage euh, lay teg ku ma koy xaw ma fii ci Sénégal benn ministre boo xam ne dana maye cinq cent mille xaw ma kon yooyu wax wax bu yàqul boo xam ne jërul di wax ndax man sama ñàkk ci lay tuur loolu wax naa ko ku mu neex ku mu naqari vingt et un ans ci laa am million bu ma woon ça je le dis te nit ñi xam nañ loolu intercolore di 4 4 96 maa ko jaay ko as jaxate mu jaay ko bàcc ñaar transfert bu ngeen ko ko waxee dana leen ko moom laa campagne conseil régional ñaari kàttan kon di ma wax oto am naa ko ak awuma ko loolu amuluma njëriñ beneen bi mu war a clair mooy fàmm digganteem ak yàlla na wax ak yéen kañ la ma doon jox fukki nag yi ak bu doon ëllëg danaa wax ni day 2012 yónnee na ma ñaari nag ci cant bi jox ko ku ñuy wax fuuta mi ngi ci dara man ngeen a dem laaj ko ko la war naa ko bëri dem mu ne ah, xëy na quoi ma ne ko kon yow da nga ma yoral fukki nag ndax Farba neen daf ma ko doon jox Farba samay cant genn gu mu ñëwit amul xanaa bañ nekkee opposition te xaw ma leer na ndax 2009 2010 2011 ñaanal naa Macky Sall jàppale ko muy ñëw Touba di présider cant ndax 2005 la cant gi tàmbali cant gi première année ñetti nag lañ ci rey xanaa kon damaa jaay juróom-ñaari nag juróom-ñaari nag yi maa ngi ko comment maa ngi ko limité ci 2008 première ndaje bi ay Mbodj wax nañ ci moo ko en 2005 moo ñëw président. mosuma gisul dërëmam bu ci dem ndax at moomu at yooyu farba amul xar mu mën a joxe bu dee dëgg la xar amu ko bay am ay nag yu muy joxe mbaa ko amoon it du am yéene ci kon nit ñi waruñu naxante leneen li ma koy posé te moo ma gën a ñor mooy enveloppe yi mu ma doon jox ci kan la jóge ci ministre la wala ku yor ay marché mais du ma nangu nit kuñ naan yow am nga ay courtage ay un milliard ci ay terrain wala ay un milliard ci ab gaz mu naan jox na ma mel ne daf may taxal kañ la ma jox loolu il faut mu leeral ko bu dul loolu danaa saisir la justice pour mu ñëw wax lu tax mu ma doon joxul xaalis ndax ñaanu ma ko ku ñaanu am na loo xam ne waruloo ko wax donc précision boobu moom laa bëggoon wax Gaston Mbengue it wax ji muy wax ci jëwal Gaston sama magal ñoo bokk bàyyi xamante nañu bu baax mais du sama modèle moom politiqueul politiqueul moom xam na ci lan lay dund bokkuñu lu muy dund man damay politique

foo ko jëlee kañ nga ko am yëpp naa ne jënd nay tool barki démb jam ñaaño ci benn xaritam bu bu daan peut-être xam na ca régime bële la bokkoon du ma tudd pour suturaal ko ci boobu lay doog am tool barki démb man nag ay tool dama ko am yàgg ami tool <laughs> ndax am naa pexey man a ami tool beneen biir engrais yi muy tudd na wax engrais bi fu ñu ma ko doon joxe ku ma doon jox engrais na ma ko wax na ko génnee bu ne dañ may jox engrais man je suis pas demandeur au contraire man jaay état bi bu soxlaa engrais ma jaay ko joxal ko ko ay nit xanaa kon loolu la dégg état bi yoral na ma engrais boo xam ne maa leen ko joxe fayaguñ ma ko kon loolu li muy dugg yoonam da cee mais li gën a gàtt daal mooy ñuy wax bul tontu farba dama ne farba nit la mi ngi wuti milliard di ko def ci poosam di jéggee moom i frontière

gars yi PDS yi la moom la lëkkaloo noonu boobu wax na ko ñoo ñoo doon xaritam lu tax mu doon làqu ci ñoom mosu leen a critiquer mosu leen a critiquer loolu mooy wax bi il n'a jamais critiqué ñooñu kon bu toogee ba man mii défendeur défense Macky Sall toi bu nekk ma toog défendre ko man la naan bu attaqué parti bi wala Macky Sall ba mu attaqué parti bi bu amee foo xam ne day ci kiñ tegañ doon ko wax te bokk loolu laa wax ça va très mal à l'APR loolu laa wax et je le réaffirme kenn ci ñi xeexoon pour APR ñëw ci pouvoir bi ko contane ba bari wu ñu néew lañu ñi contane nañu wax di contane nañu loolu rek la wax et ça je l'ai dit au nom de tous les militants nañu sétat nu ñuy def ba mëna défar defar suñu parti bu dé bëgg ñu suñu parti yàgg je pense que lolu moo doon essentiel li nga xam mom la laa waroon a wax éclairer ko

tey jii mbir mi nga xamante yëkkati nañ ko teg ko jëmale ko ci yow nga jàpp ci lu bare bare bu tër tey jii ban jeexital la ci nar am ci wàllum yoon la ci nar a taxawee beneen bi soo ñu ko permettre da nga wax sànq parlement de la CEDEAO euh, ci jamono jii ñuy àddoo cour de justice bu CEDEAO génnee benn mbir moo xamante dañ ci condamné état bu Sénégal lu tolloog fanweeri million ak juróom ci lu jëm ci wàllum Khalifa Babacar Sall en tant que bokk ci parlement de la CEDEAO boobule taxawaay jeexitalu loolu ndax ndaw ñi nga xamante ni ñooy jàpp Khalifa sal. nee nañu 72 heures ultimatum de 72 heures la ñu bàyyee groupe Sénégal bu ñu wu seen vidéo boobule dinañ dox jëm kenn ñu si libéré. bon point euh, bu jëk bi sur le plan politique problème politique amul un militant simple de paix, moo ma attaqué parti bi waxul bu doon instance parti bi dafa prononcé wu ci suma wax man naa la wax lu doon suma position dafa am benn militant boo xam ne daf ma attaqué te tegu ko ci dara ma war leen koo leeral ba pare xamal leen ni fi ma jëm ak moom parce que fi ma jëm mooy sama avocat dinaa ci wax ak moom pour décision yi ñu war a jël pour mu leeral li ma teg ci tuuma ndax daf ma teg tuuma ndax dafa wax daf may jox alal ay nag fukki nag alal la daf may joxit ay enveloppe loolu la wax loolu laa bëgg ñu leeral ko il faut mu leer parce que daf ma ko teg yow bu la neexee ni am na foog mu neex ni amul kon dafa war a leer ci bopp nit ñi ba ñu xam vérité bi fan la nekk problème mu cour de justice de la CEDEAO kooku juridiction supranationale dafa am ay mission yoo xam ne yi war na ci atte war na ci prononcé wu joxe ay arrêté à arrêter amul ay de en tant que président parlement sénégalais. Maniko, dossier boo xam ne une saisiruñu saisir une ci oui à euh, institution voilà euh, ben agence spécialisée nous avons le droit saisir ci dossier ram non mu surtout voilà là, la bonne euh,

oui bon j'ai été attaqué par un militant du parti qui m'a accusé euh, des fausses accusations. Euh, et je tiens à les éclairer. C'est la raison pour laquelle j'ai convié l'ensemble de la presse à être là. Parce que il a dit qu'il me donnait 10 chaque année. Ce qui est en porte-à-faux avec euh, ce qui s'est passé. Farba m'a donné en 2012 deux Il a remis à un certain foot qui est euh, à, l'abattoir de, Pékin, qui m'a appelé et m'a donné deux c'était lors d'une de 2012. Mais depuis, je n'ai plus vu euh, un bœuf ou un centime de femme. Ça, je tenais à le préciser. Mais l'autre problème qui me dérange, il a parlé des enveloppes qu'il me remettait. Et je voudrais qu'on demande à Farba d'où provenaient ces, enveloppes. C'était quoi de, des dividendes issus euh, vraiment des transactions qu'il a l'habitude de faire c'est-à-dire comme il est compliqué, ou bien c'est des ministres qui, en, phase de corruption lui remettaient des, des, enveloppes pour le remettre, il doit s'expliquer sur ces questions. Parce que moi, je n'ai jamais reçu de Farba un centime qui provient de, de, de, de l'argent illicite ou bien d'un ministre ou d'un directeur. Je le défie. L'autre problème, moi, je ne connais pas les autres ministres. Je ne connais même pas l'installation des ministères. Je connais le ministère des Finances, de l'Agriculture, euh, le ministère de l'Intérieur, entre autres, peut-être, s'il y a un autre ministère que j'ai fréquenté pour des raisons euh, de, service ou des raisons indépendamment politiques, ça pourrait être un ou deux autres ministères. Mais les autres ministres, je ne les connais pas. Et je ne trouve pas un ministre qui donne de l'argent ici. Donc, il doit savoir raison garder et arrêter. L'autre problème, c'est le problème, j'ai entendu Gaston qui est mon frère, qui s'est émissé dans un problème qu'il ne maîtrise pas. Euh, vraiment, je, ne pourrais pas me répondre parce que ce n'est pas Gaston qui me donne des dessous. Ce n'est pas Gaston. Gaston n'est pas mon modèle, c'est mon grand frère, mais il n'est pas mon modèle. Donc, je ne commande pas ce qu'il a dit. Il est libre de le dire, mais je voudrais tout simplement dire que je n'ai jamais parlé de paroles, paroles déplacées à l'encontre des tuyaux de mon pays. Je ne l'ai jamais fait. J'en ai des amis, des pères, des frères, des sœurs. Seigneur Sommeil, il est mon père et un ami, Ablaï mes père. D'autres m'assemblent et d'autres, tant d'autres qui sont là donc, j'ai dit qu'il n'est pas un bon griot. C'est ce que j'ai dit. Il n'est pas un bon griot. Un bon griot ne, mélange pas les pédales. N'essaie pas de créer la cisanie, de créer des tensions, de mentir et de dire des choses qui ne sont pas contre la vérité. C'est ce que j'ai dit. Il n'a qu'à arrêter. Je ne suis pas son égal. S'il a même pu bénéficier de l'alternance pour ramasser des milliards, mais il est libre, il n'a qu'à s'expliquer euh, euh, face à cette situation. Ce n'est pas mon problème. Mais il ne peut pas se mesurer à Moussa qui a été député en 98 conseil de la République en 2004-2005, euh, président de la Commission, vice-président de l'Assemblée nationale, président du Parlement. Il ne peut pas se mesurer à Je, je suis désolé. Vous allez leur, servir une sommation interpellative Demain, je vais saisir mon avocat pour lui sommer de dire quand est-ce et où il m'a donné les directives, quand est-ce ou où il me remettait des, des enveloppes, c'était des enveloppes destinées à quoi Il faudrait qu'il réponde de ces accusations. Euh, je remercie le président du groupe Futur Média qui a eu la générosité de m'appeler. J'étais hors du Sénégal et qui m'avait demandé de ne pas répondre en attendant qu'on se voit. C'est mon frère que je respecte beaucoup. Je le remercie de cette attitude responsable. Quand je suis arrivé, il m'a vu, parce que je devais tenir ce point de presse hier, mais il m'a demandé de sursoir pour qu'on puisse se voir. Il est venu vers moi, on s'est expliqué sur la situation et je lui ai donné les explications. Ce n'est pas les petits problèmes détails qu'il a dit, mais les accusations qu'il a portées à mon endroit me blessent et je suis tenu de répondre donc par cette attitude. Et je lui ai suggéré vraiment de me laisser continuer de répondre et de laisser la presse exploiter ce dossier. L'essentiel, j'ai été victime d'un complot de manipulation que je ne saurais laisser passer comme ça. Je suis un responsable de l'appel, je l'assume. Je défends le président, je soutiens sa candidature, mais je ne suis pas d'accord sur ce, qu'on fait au niveau de la paix. Je suis en déphasage avec le secrétariat exécutif de la paix. La façon dont ça fonctionne ne me convient pas. Donc je suis obligé de dire que je ne suis pas d'accord. N'en déplaise mes dictateurs, ils sont libres de commenter ou de demander mon départ, peut-être des postes de députés et autres. J'attends la réaction du parti. you